duma national mu ngi normal. waaw man maa ngi leen di dégg yéen yéen a ngi may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax a baax macha allah. très bien. Euh, yéen ñaar vous n'avez pas honte. première question honte. yéen ñaar vous n'avez pas honte amu leen rusule yéen ñaar. ah. yéen ñaar ngeen di sot ngeen di sot Toto Baba Ndiaye yéen ñaar. yéen ñaar moom mu nekk kenn yéen ngeen nekk ñaar yéen rusuleen. yaa tooñ de ba tey benn nit la woon de. ah ma man gis naa sawaay mu toog ci table micro bi naan Baba Ndiaye di def waaw maire bi dafay bi. daf maa loolu yow yaa yow yow loolu loolu loolu sax dafay leer na yooyu sax ay xeetu xalaat la yow yow. kenn xalaat parce que bu ma kenn dugal lépp xalaat sawaay la man sama yoon ne aussi bu di may wax yow nga ni Babou Ndiaye dafa ku koy bindal te yéen ñaar da ngeen di bindalante sawaay day bind ba pare ngeen wax leen dëgg rek te yàlla tax affaire bi c'est pas un combat équilibré parce que sot soo daf ci am. non mais yow boo xamee ni ñaar lañ ngay dugg ci ñun kay yow yaa tooñ sa bopp doo dem ci kenn. mais sa waay moom cornflakes yi la géré woon mënoon na continuer gérer cornflakes yi rek. cornflakes yi day yëy xol de. <laughs> king cornflakes king maa ngi maa ngi nuyu ñi dugg ci live bi ñëpp. actuellement en direct ak Sénégal bi yëpp. ñu leen di nuyu bu baax a baax. Ah. parce que tamit ñu ñëw rek commencé sans pour ñu nuyu leen. ñu di ah, nuyu leen parce que wax ngeen di wax rek ay ay ay ay digg ndakaaru yooyu di ma ma ni digg ndakaaru bi koy wax nuyoowu leen te daa ciib moom. waaw yéen xaw ma lu ngeen léegi nuyu nañ waa digg ndakaaru. ak catu Ndakaaru Sénégal fu ne ñu ngi leen di nuyu baax a baax waaw leen présenté kii moom vraiment koy présenté Pape Sidi waaw tey je vais m'adresser à président de la République française Emmanuel Macron Emmanuel Macron pour lui dire quoi pour lui dire quand Paris Saint-Germain avait acheté Zlatan Abraham Ibrahimovic. Wow. Il avait marqué son but. Et ce jour-là, on avait pris son nom pour l'instaurer dans le dictionnaire français. c'est vrai. Il peut signifier gagner ou, euh, ou, ou, ou, quelque chose comme ça. Cependant, je voudrais que ce mot-là, le mot tamarin, il faut le, <laughs> il faut aussi le donner un verbe tamariner parce que c'est lui qui est le tamarineur du ah! peuple ki ñàkk na xor bu ko dégg il avait tamariné dafa ñàkk fayda man tax ma jëm yëpp dina déglu da nga ne waxu ñàkk fayda yi ngay wax et il va encore tamariner il tamarine

il tamarin nous tamarinons vous tamarinez il tamarin ba woy ma daxaaroon ma eh, daxaaroon donc des victoire maanaam dangeen a gañ affaire yi gañ ngeen ko quels sont maanaam lan fan ngeen di sukkandiku pour wane ne gañ yéen a gañ kii euh, clash bi so bon avant tout man maa ngi nuyu ñëpp di siyaar gars yi ñuy seetaan yëpp di wax que ni bon déjà classe boo ci duggee objectif classe dafa bëri ay façon dafa am ku ci nekk ak nu muy duggee si classe soit da nga ciy mhm. dugg pour mu nekk benn compétition boo xamante ni soit da ngay xool nag ay gagné la parce que amul benn bu ñu fi teg amul benn affaire boo xamante ni mëni la amul benn affaire ñun ñoo am suñuy propre envie di jël benn affaire di ko def xam nga li la mhm. te dañ koy def aussi pour wane benn genre mën naa wax ni victoire la la victoire hip hop Galsen victoire musique sénégalaise victoire ñëpp parce que déjà bu dee ci côté victoire foofu laa ko yóbbu mais pas ay parce que déjà man bi may dugg ci classe awma ci intention gagné Baba Ndiaye wala awma ci intention foog Baba Ndiaye non non dama ci amoon intention wane benn affaire boo xamante ni talent la pur talent boo xamante ni écriture la affaire boo xamante ni hip hop la affaire boo xamante ni rap la affaire boo xamante ni yàgg nañ ko ko denc te musuñ ko wane wala musuñ ko dund wala musuñ ko tegal sénégalais yi donc clash bu amee souvent dafay am di benn benn focus ci ñun parce que souvent focus yi day dem ci politique wala mu dem ci benn affaire mais bu clash amee day am benn focus ci ñun léegi focus ci ñun boobu ñun dañ koy utiliser indiwaale si benn affaire bu bees parce que soit bu nit ñi commentaire yi lu ñu bëri bëri lan moo si am a aarade lim def nice na hip hop bi nice na boom bag donc ngaa xam la ne li mu def nice na ala li def nice na donc après lan moo si am ah lan moo si am après da ngay xam ni lii vraiment ñëpp ñëpp ci gis seen bopp donc man amul ay victoire ay nii wala naa parce que tey bu classe bu continuer woon man damay continuer damay def ay sound pour aussi ma ma am ay chiffres yu may indi mhm. donc pas ay gagné quoi am ay affaire de affaire de wane benn affaire la wane benn talent wane benn musique béggal sénégalais yi sénégalais yi man loolu laa jàppee li ma doon def mais pas affaire de bon damay jàpp mbay gestuwul damay jàpp mbay def nii donc affaire de kaay la affaire de hip hop la et dans hip hop parce que j'ai l'habitude de le dire Jay-Z Nas mos na ko jàpp ci classe gagné mais est-ce que tey jii bu ñu tuddee Jay-Z dinañ tudd Nas ci ginnaawam lay daw donc est-ce que classe loolu est classe boo ci nekkee ñëw dominer benn ni ça veut dire que ni yow yaay lii wala yow yaay laa wala ça t'empêche d'avancer donc tey jii man li ma def ngaa Blindé Ngaaka Blindé xam na mooy kii wan na ma ni a ah, waa ji moom ëpp coow waa ji moom ëpp problème waa ji moom a gën a pare waa ji day dem ba jeex waa ji kenn du waa ji donc après à un moment donné il faut que mu comprendre ñu ban idéologie lañ nekk on ba avancer ñun suñu yoon mais n'empêche ku ñu xosi wala nga xuuri ñu te mu jaar ko bu boobaa dañ lay wan ci ko beneen quoi. yow euh, Abba maa ngi mu ngi nekk di ruube di wax fan la ci exactement ci diggu Ndakaaru mais bon xanaa avant la fin du live di ngeen di wax ban lieu la comme ça ñu comprendre euh, parce que Aba ni mu nekkee nii ku ci jugut bu dee safara la jëm en direct loolu je te le dis je salue aussi en passant toutes les personnes qui après les clashs qui amplifient la chose daf koy jox beneen tournure euh, te du am euh, xotti war ma c'est vrai que bëri na ay kaañ sa part dans tous les sens mooy loolu mais léegi clash bi genèse u clash fan la jógee c'est parti du seen diggante yéen a ngaa ko blindé nan ngeen def ba mu am clash mais fan la clash bi tàmbalee lan ngeen seq ba clash bi juddu seen diggante yéen a ngaa ko blindé bon historique bi nag dafa dafa damay wax ni wax naa ko ci sama classe bi passé nekkul ku la pig rek nga defal ko sànq. Mhm. xanaa mbay occupé woo mbay xanaa defoo dara. Mhm. déjà loolu mooy indi classe bi bi li ko indi phrase bi ma wax bàyyi ku la pig nga defal ko saamu xanaa occupé woo mbay xanaa defoo dara parce que mm-hmm. tey ji tey jii bon dans l'historique du classe dañoo amoon loo xamante ni mbay def ñu daal envoyé ay ci ay sawnam tu vois comme man mm-hmm. ni may envoyé ay ci ay samay saaw loo xamante ni chaque jour dañ naan la ara kaay jël say affaire sa waay laal na la fii souvent noonu lay demee ñu ne mbay kaay jël say affaire sa waay laal na donc loolu yàgg Facebook après daaw bi Deyza dugalee benn pic ci def effet bi Deyza dugalee benn pic comme d'habitude ni ñu doon pigante Deyza dugal ko benn pic pic bi nag xam naa xaw a tàng mais Deyza ci la ko dugalee benn pic pic bi nag bi mu dalee rek booy bi dem génne benn sanwoon ne ko man du ma xaar vingt quatre heures ci ay pic yu noo mën la kii baaba loolu moo déclenché classe kon yéen a tooñ defee waaw non non que non bi mooy